أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokki jullit yi ginnaaw loolu noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey nu toll ci suura al araf ci kàttanu borom bi tey ñuy jël ñetti aaya aaya 77 78 79 ñetti aaya yoo xam ne borom baa ngi ciy jàngal ñetti mbir yooyu ba ca jiitu mooy xuluulu niqmatillahi taala bi kulli manatan an amrihi subhanahu wa taala sunu borom subhanahu wa taala mu ngi nuy jàngal ne bépp xeet bépp nit bépp doomu aadama boo xam ne danga jàdd santaane yàlla tabaraka wa taala moom yàlla mbugalam dina wàcc sa kaw ak foo mën a nekk ak yow yaay kan ak ku la mën a jur bu la yàlla mbugalul àdduna àllaaxira dina la mbugal sikk nekk ci ne mënoo rëcc ñaar yëpp nattu yàlla tabaraka wa taala ay mbugalam dana wàcc ci ñépp ñoo xam ne dañoo dëgër bopp ne këng këccaaral comme ni ko yàlla defee ci nitu nuux yi ni ko yàlla defee ci nitu aad tey ñu nekk ci xawmu luut ñii ñetti xeet yépp jàdd santaane yàlla yàlla mbugal leen nettali ñu ko ci alquran kon loolu yàlla lim ci bëgg mooy nu nit ñu ne tekk tekkaaral xerewlu xam ne bu nu jàddee la daloon gaa yi dal nu loolu mooy dars bi yàlla wax nañu ne moo bëggal nitu nuux lan lañ def wax nañu ko dañoo bàyyi yàlla di jaamu ay xërëm di jaamu ay nit di jaamu ay estati yàlla mbugal leen xawmu aad yàlla wax na nu lan lan def mu mbugal leen tey ñu toll ci xawmu saalix yàlla waxagunu lu nu def waaye wax na wax na nu ne dina leen mbugal kon ça veut dire que dañoo jàdd kon luñ ciy jàng mooy bépp xeet bépp réew bépp dëkk bépp doomu aadama foo mën a nekk nga lànkal yàlla tabaraka wa taala wow kongu këcc foo mun a ne yàlla dina la mbugal bu la mbugalul àdduna mbugal la alaxira loolu mooy bu njëkk mu leer ñaareel bi mooy mashruiyatu sara liman maata aw usiba bi musibatin azim danañ yoonal saa ñu déggee ñu ne mashruiya yoonal nañ mooy loolu nuy bu ko wax suñ ci njëkkee baatu mashruiya yoonal nañ kon mooy dana tekki ne loolu bu amee sant nañu nit ñi ñu def dara lu ñu yoonal mooy lu danga na def loo xam ne lislaam nangu na ko ndax lislaam moo naan def leen nu def bàyyi leen nu bàyyi ba lislaam nekkee lislaam laa wax nag nga xam ne ñu ngi koy dund pur et dur waxuma tey jii nga xam ne nit ñi dañuy def lu leen neex ba pare di ko mbubboo ci lislaam yoonal nañ asara mooy sëngëmtël yërëmtëlu ci ku faatu ku faatu yoonal nañ boo déggee sa mbokk faatu na wala nga tiim néew bi nga yërëmtëlu loolu mooy asara yërëmtëlu gi nit di yërëmtëlu di wax ay baat ay waay waa ji ni mbaaxe woon ay kii loolu loolu dañ ko yoonal moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn bis doomam bu tudd Ibrahima dafa faatu sahaaba yi gis ko ba di di tuur rongoñ ñenn ci ñoom ne ko hatta anta ya rasulallah même yow yonent bi da ngay jooy ku faatu mu ne lii dafa wuuteeg la ngeen foog ñun sunu jooy yii dafa wuuteeg jooy yee ngeen di yaakaar sunu jooy yii bët yi ñooy tuur ndox xol bi di ko naqarlu di ko mettitlu waaye gémmiñ gi du wax lu dul yàlla gërëm ñett yi lañu bëgg kuy jooy ku faatu mu jooy ko mu def ko mooy sa xol na ko mettitlu sa làmmiñ na wax lu yàlla bëgg say bët mën naa tuur rongoñ waaye li am nag léegi mooy fay ay nit fay ay nit nga am ku dee nga dem fay ay nit damaa bëgg ngeen jooyal ma sama ku dee ki dafa mel ne jooy yi mooy wane ne waa ji dafa baax yenn saa yi sax nga gis ñoo xam ne ki ñuy jooy xamuñu ko yenn saa yi sax ñu jaawale ku góor ak ku jigéen la yuuxu ba ci yàgg daal di tudd benn tur ñu ne la déet déet sëñ bi ku jigéen a faatu de nga ne ah man du ma waaw waaw fekk fekk yow dañ laa fekk fee rek fay la ne la kaay nga jooy ku dee ki tey foofu lañ toll parce que Sénégal dañoo yaakaar ne suñu deewee suñ ko jooyee jooy yu bëri nit ñi di wax ci moom day dugg àjjana fekk jooy yooyu ak yuuxu yooyu day tax ñu koy mbugal yowmal xiyaamati ndax loolu la yonent bi wax innal mayit la yuazib bi bukaai ahli yoo yuuxu yooyu ñuy yuuxu di gajj seen bopp wooy man fu ma jëm wooy torox nañu wooy ñun kuñ ñuy bàyyee ana yàlla ayna allah xola baatu weddi yooyu loolu dañ koo tere ab jullit kon yoonal nañ ab jullit mu sëngëmtal wane yërmande boole koog wax yooyu muy wax yu baax bu fekkente ne loolu faatu la yoonal nañ mu def ko bu fekkente ne musiba tamit moo dal nit yoonal nañ moo def loolu kon nga gis islam dafa am yërmande du dis islam du diine ju wow koŋŋ rek joo xam ne amul yërmande kenn du jooy kenn du reetaan kenn du am na ci jullit yi ñoo xam ne jàpp nañ ne kenn warul ree boo reetaanee sax ñun ah imaam da ngay ree kenn warul déedéet loolu du lislaam lislaam diina yërmande la lislaam diinay mbégte la lislaam diina ju rafet la lislaam diinay taar la kon yoonal nan loolu ñetteel mooy alaamatu qurbi saa mandarga yi wane na yow man xiyaam jege na lu koy wane alxilaaku ida asbaxa annaas yakrahuuna nus wala yuhibuna annaasihin bokk na ci mandraga yowmal qiyam yu wane ne yowmal qiyam jege na mooy buñ demee ba nit ñi bëggatuñu ku leen laaya biir ku leen ne yàlla nee na ñu naan dimbali ñu waay dimbali ñu de ñëwati nga de yonent bi nee na ñu naan ah yonent ban yow diw nga naan yonent nit ñi suñ demee ba bëggatuñ ku leen wax dëgg bëggatuñ ku leen laaya biir ku leen jàngal lislaam bu yow ñoo xam ne yowmal xiyaam jege si na léegi nag ngeen xool jege na wala jegewul kon te lu doy waar mooy yonent bi ba muy wax ne yowmal xiyaam jot na nii la def mu ne buistu wasaa kahatayni bi ma yàlla yónnee ak yowmal xiyaam fu muy jotee mu ne nii te yonent bi jamonoom la ko defoon de nii kon léegi lu fi des kon jot na wala jotul ba pare nag mu joxe ay mandarga bokk na ci nit ñi bu ñu bëggatul ñu ne leen yàlla nee na yonent bi nee na yowmal xiyaam jot na te tey foofu lañ toll ba ne yàlla nee na kanam yëpp ñuul wa ida zukira allah wahdahu izmaazat qulubu alladina la yuminuuna bil axira suñ ne yàlla nga gis xol yëpp lëndëm ñëpp kanam yi ñuul kenn du kontaan waaye wa iza zukira min dunihi fa iza hum yastabsirun bu ñu waxee keneen ku dul yàlla nga gis gaa yi bég kontaan ñii di mbëkk ay miir ñii di mbëkk ay tip ñii di yuuxu ñii di xëm di xaacu est-ce que dañoo wax parce que dañoo wax ku dul yàlla loolu mooy màndarga yowmal xiyaam nit ñi foog ñu xam ne yàlla rek moo fi nekk amul keneen yàlla rek la koo fi yaakaar wala nga nangam nangam di ko tagg ak di ko léegi mu dee kon yàlla rek la beneen bi mooy dañoo war a xam ne nun ay jaamu yàlla lan duñ ay jaamu nit yàlla nu sàkk te dafa am lu tax mu sàkk nu mooy lan mooy dañ ko war a jaamu barki démb laaj naa question boobu ay nit yu ma nuyu jiwoon pour waxtaan ak ñoom ci lislaam ma ne leen bi ñu toogee ba saal bi fees ma ne ay question laay jiital ba ca jiitu mooy télé bi lu tax ñu indi ko fi ñu ne ma pour ñu seetaan man leen fauteuil yi ñu ne pour ñu toog man leen ventilateur bi mu ne pour mu féexal saal bi lu ma laaj ci saal bi tontu nañ ma ba saal bi bagage yi ci lépp yëpp jeex man leen léegi nun lu tax yàlla bindu nu ñett doomu aadama bu xamul ñett yi alku na ñett mbir yi soo ko réeree perte nga sa dund yàqu na mooy fu ma jógee fii ma ñëw lu ma fiy def su ma fi jógee fu ma jëm ñetti question yi ko mënul tontu alku nga fan laa jóge pour ñëw fii fii ma ñëw lan laa fiy def si lu ma fiy ut si su ma fi jógee fu ma jëm ko tontu rek sa dund day yàqu li moo tax tubaab yi alku ñi dul yàlla ñi gëmul yàlla ci tubaab yi lii moo tax ñu alku parce que question yi duñ ko tontu ñoom lu ñuy wax in hiya illa xayatuna dunya namuutu wa naxya wa ma yuhlikuna illa dëhr ñun daal dañoo ñëw rek adduna la ñëw dañoo war a dund dañu war a neexal adduna bu mu suñ deewee après dara du xew ginnaaw dee kan lañ fay fekk loolu mooy fan fuñ fi jógee fuñ jëm te mënu fen fii lañ nekk fii la ñuy tëdd ci armeel yi non ab julit moom gëm du loolu ab julit dafa am fu mu jógee ñëw fii fii mu ñëw dafa am ku ko fi indi kooku ko fi indi dafa am lu mu soxla ci moom te yëgal na ko ne dinaa la fi jëlee te su ko fi jëlee am na fu mu koy yóbbu su ko yóbbee foofu da koy àtte da koy réglé lan la koy réglé lan la koy àtte mooy lam ko indee woon àdduna lan la ci def lan la bàyyi loolu foog ñu bàyyi ko xel ñett yooyu ñu sóoraale ko sunu bopp lii mooy mandarga yowmal qiyaam suñ demee ba nit ñi nangootuñu ñu wax leen yàlla ak yonent loolu bu yeba ñoo xam ne yàlla yowmal qiyaam jot na su ñuy demee ba bëggatuñu yàlla boo waxee yàlla nit ñi dañuy gêné wu soo waxee yonent bi nit ñi dañuy gêné wu soo nee nañ dellu ci alxuraan nit ñi mer soo nee nañ àtte sharia nga dégg ñu naan waaye ban sharia sharia dafa soxor de dagg loxo cawaate rey loolu dafa metti de est-ce que loolu mën nañ ko loolu lan lay wax wala kan la islam wax nañ ko caw kooku ñuy caw lu mu def bañ koy caw waaw kan la islam wax nañ dagg loxo bi lu mu def lu mu def kan la islam wax nañ lañ ko rey lu mu def dafa rey ba ñu weddee loolu yëpp nag ne kenn du ko def ndax loolu baaxul yàllaa ko wax waaye baaxul kenn du ko fi def nañu tabax ay kaso rek ku rey nit ñu dugal lëf fu mujj ah fu ñu mujjee rey rek rey rek da ngay gis kenn rey daal nag ñu tëj ko génne ko mu ne waa booy maa ngi dem ñëwaat ma place bu ci kenn toog maa ngi ñëwaat parce que kaso yi dafa neex da ngay lekk doo jënd nga am kër goo fanaan amoo doo fay courant doo fay ndox soo fay bare ñu faji la loolu daa neex di ba pare ñu lay garder dañ lay garder wala duñ la garder dañ lay garder di comme président wala ah loolu daa neex di ah l'islam nag chaque jour ñu wax leen ne la sujuuna fi l'islam l'islam xamul kaso parce que kaso day yokk budget dëkk benn rek xoolal kaso bi li mu occupé mënoon na nekk université wala mu nekk ab école wala tabax bi ñu tabax loolu rek saal yooyu fa ñu tëj nit ñi mënoon na nekk ay ay école d'accord ngeen wala ña fay garde mënoon nañoo nekk ay jàngalekat yuy jàngale ñañ fa tëj mënoon nañoo nekk ay jàngkat courant bi ñuy taal nag ndox mi nag oto yi leen oto yi nag xoolal rek loolu yëpp budget la fan la jóge état moo koy financé moo tax ci lislaam amul kaso da ngaa rey nit ñu xool ba xam ne yaa ko rey ca dañ koo tooñ ah ñu jàpp la rey la da ngaa sàcc ñu xam ne banditisme moo tax nga sàcc du xiif du mar réew rek ñu jàpp sa benn loxo bi ne ko tippit dagg ko ci kuuñ bi fii ba léegi doo sàccaat ku la gis ne la sawaay lan la nga naan ko man nga daanu fee doo ko wax damaa sàcc woon da leen tarxiis ba ma kii rek ñu dagg ko loolu nga koy wax de waaye doo ko wax damaa sàcc woon bu ñu la yóbbee fii ci stade bi comme stade bi fees del nit ñi ñu dagg sa loxo bi ñëpp gis ko loxo bi ñu takk ko ci kaw benn benn machine yëkkati ko ñu ne nii ñëpp gis loxo bi ku gis fii kalpe jàmbur da nga naan macha salaamaaleykum mbokk yi kalpe bi kan moo ko moom di jéem a gëm-gëm lu yàlla fekk bu amoon loolu nga ne ko carax dugal sa poos daan xéewal am naa xéewal am naa xéewal ngay wax ban xéewal al est-ce que loolu xéewal la ah c'est ça loolu mooy sunu problème xoolal keroog fii lañ nekk caméra yi benn waaye fii la dugg fekk fee ay dàll mu sàcc dàll yi def ko ci saagam ñëw teg fii saag bi taxaw ci sàppe bi nag julli gis nga lim def dugg jël dàll yi def ci saag indi saag bi teg ko fii julli pare jël saag bi nit ñi di war dàll yi moom xam nga fii la teg saag bi jël saag bi daal di jaar nii fekk xamul ne caméra yaa ngi koy gis léegi rek lii rek wane na ne yow mal xiyaam kooku léegi dem na fii ba ñaar fukki at bu ñu neexee ñu génne ko teg image yi nit ñi di ko gis bi muy sàcc léegi nag yow bi ngay mooy yàlla kenn gis nga ne kenn gisu la ana caméra yàlla yi ëllëg yow mal xiyaam nga dee taxaw ci kanam yàlla yàlla mu ne la yow di sàngam loolu nga doon def nga naan man man mi ñu indi la image yi nag ndeysaan moo tax ku taxaw ci kanam yàlla ëllëg yowmal xiyaam yàlla ne la lii yaa ko def nga ne man soo nee man malaak sa loxo bi day jàll day xar sa faar yi dugg génn ci ginnaaw loxo bi faar yi da koy kepp léegi nag bu la malaaka yi di jox say dossier loolu ngeen dégg yàlla naan wa amma man utiya kitaabahu waraa zahri fa sawfa yad'u su ne man fii loxo bi day jàll fii lay génnee bu ñu koy jox dossier am ci ginnaaw lañ ko koy joxee wara zahri au lieu ñu jox ko ko mais droite mais gauche la koy jële de deux mooy ci bii ginnaaw faar yi lañ ko koy joxee parce que faar yi day xaar kon loolu lu jar a bàyyi xel la tey àdduna bi démontré nañu lu bëree bëree bëri ñaata nit tey nga xam ne dee nañ waaye ñu tegal la léegi seen image nga naan suñ la waxul soo xamul waa ji bu ñu la nee kii dee na doo ko gëm fekk yow da ngay xam ne kii faatu na kon mbokki jullit yi ñetti aaya yooyu la ñuy jël tey ñu ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu mu dëgëral sunu làmmiñ ba duñu tarxiis ci génn ñetti aaya yooyu ñu bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu aaya yi bismillahi tabaraka wa taala fa aqaru naaqa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين بارك الله فيك.
صدق الله العظيم jazakumullah xeyran yal nañu yàlla fayal yiw sunu borom ne xam ngeen histoire bi ba ñu passé samedi mooy yàlla moo yónni yonent bu tudd Saalix mu ngi ko yónni ci dëkk bu tudd mu ngi ko yónni ci dëkk bu tudd yéen lay laaj de Samud la yàlla yónni yonent bu tudd Saalix waaye ba mu ñëwee ne nit ñi yàllaa ma yónni waa dëkk ba am na lu ñu ko wax mooy lan su fekkee yàllaa la yónni montagne bi na am doom dégg nga dëgër bopp yàllaa ma yónni kay question ba nga war a wax mooy lu mu wax wala ah yàllaa ma yónni yàllaa la yónni ah kon montagne bi na am doom mu ñaan ñu dégg montagne bi di onk ay seconde montagne bi xar ab gëléem génn ci gëléem googu ba mu ci génnee daal di matu ci ci saase moom tamit matu am doom doom jooju juddu seex benn lettre bu ñu bind laa ilaha illa allah saalih rasulullah mu ne leen mu ngi nii yàllaa ma yónni ah ñoom ñoom ñu jommi nag ñu nangu mu ne waaye am na nag problème ñu ne ko ban problème la mu ne yéen yéen a laaj kéemtaanu yàlla yàlla indil leen ko maadaama yéen a ko laaj gëléem gi kat gëléemu yàlla la na ngeen yëg ne yéen ak moom yéen a bokk dëkk bi teen bii ci digg dëkk bi ñu ne ah na yéen ak gëléem gee ko bokk tey gëléem gi day woor ngeen naan yéen suba ngeen woor gëléem gi naan dañ koy changeante gëléem gi bis buy naan ñoom dañuy woor ñoom bu ñuy naan gëléem gi woor ñu nekk ci loolu nekk ci loolu nekk ci loolu ba ci àgg ñu ne loo xam nga lan la lii dafa soof ay gëléem nekk fii ah waaye loolu mooy lan am benn waaye bu tudd xuddaat génn rek dajeeg benn xale bu jigéen bu rafet comme ni ko waa Sénégal di defee eh booy yow eh foo dëkk la sàngam dama laa bëgg a seet si ñëwal mu ñëw ñu defar ko affaire yi mu commencé naan ba ci yàgg mu commencé wax ay waxam ndaw si ne ko ah lenn dong de moo fi nekk mooy bu fekkee da nga maa bëgg gëléem gii sonal ñu da nga koy rey wala jigéen yàgg naa indi problème góor lan moo tax ñu génnee Adama aljanna ah waaw moo tax yandi na fa inna awalu fitna kaanat waqa fi bin- bani israil kaanat bin nisa wallahi alazim yàgg nañu indil fitna góor lu bari ci góor ñi jigéen ñee tax duñ dugg àjjana mu ngoog ndax topp gi ñu leen di topp ci lu neexul yàlla waa ji daal ne moom mën na ko génn ne waa dëkk bi lan la waa dëkk bi ne ko gëléem gi mu ne danaa ko rey saa yi dafa ne dañuy caaxaan parce que waxoon na leen lii gëléemu yàlla la bàyyi leen ko mu lekk ci suufu yàlla si ñu ne ñoo lànk ñoom dañuy rey gëléem gi parce que sonal na leen lan lañ def moom la ñu borom bi di nettali mu ne fa aqaru naaqata ñu cor gëléem gi naharuha ñu rey ko waaye bala ñu koy rey lan lañ def dañoo dagg tànk yi affaire soxor yooyu fekk gëléem gi tëdd ak doom ji ñu rey yaay ji dagg tànk yi taf taf taf ñeenti tànk yi xam nga mënatul daw doom ji moom daw ñu topp ko ba mu yegsi ci xeer bi xeer bi ubbeeku doom ji dugg moo tax yenn borom xam-xam yi naan mandarga yowmal xiyaam lool ñu naan yàlla daaba boo bu muy wax ne tukallimu naas daaba bi dana génn wax ak nit ñi ñu ne gëléem googu muy génnaat ndax doom ji dafa dugg foofu ñenn ci borom xam-xam mandarga la boobu lañ joxe yaay ñu rey nuñ def ba doom ji rëccee comme gor nañ tànk yaay ji xam nañ ne mënatu la daw ñu ñu retourné ñoo fekk yaay ji fi mu tëdd ñu jàkkali ko dagg baat bi gëléem nga daal di faatu borom bi ne fa aqaru naaqata te waxoon nañ leen ca suuratu ca suuratu sams lan lañ leen waxoon ah ñu waxoon nañ leen li gëlëmu yàlla la naaqatullah gëlëmu yàlla la bàyyi leen ko fa aqaru naaqata ñu daal di rey gëléem ga borom bi mu ne wa ataw féttéerlu nañ fa marradu allahu akbar xoolal ku féttéerlu ci kanamu yàlla ne yàlla lang ma tere bàyyiwuma ko maa tey maa ngi nii maa ko def fa ataw an amri rabbihim féttéerlu nañ ca seeni ndigal boroom wa asaw fa lam yutiicu mooy nañu yàlla toppuñu ko yàlla ne leen bu leen rey gëléem gi ñu rey ko wala tamsuha bi suu bu leen ko laalal lu bon ñu daal di jàpp gëléem gi waxuma la laalal lu bon waaye ñu éliminer ko génne ko ca dëkk ba complètement rey ko yemuñ ci de biñ ko reyee ba pare féttarlu seen ndigalu borom xanaa doyoon na wala sax ñu tuub ñu rey ko ba pare ne ana saalix ñu ne ma nga këram gaa yi ñëw di fëgg buntu kër gi wa qaalu ya saalix itina bi ma taiduna in kunta min al mursalin eh nga ne yonent nga yàllaa la yónni rey nañ gëléem gi léegi nag loolu waa Sénégal di wax boo dee yàlla tawal doj wa qaalu ñu ne déglu leen de yaa saalix e yow saalix itina indil nu bi ma taiduna lang nu dig in kunta bu fekkee nekk nga minal mursalina yàlla la yónni bu dee yàlla la yónni ñun rey nañ gëléem gi de acca bismillah li yàlla doon wax na ñëw nag est ce que lii moo lii moo yell lii moo yell ci ku tooñ yàlla ah lii moo yell ci koo xam ne dafa tooñ boroomam lan moo yell mooy boo tooñee yàlla nga yëg ne tooñ nga ñu ne aadama bi mu tooñee yàlla ba yàlla wàcce ko ci kaw suuf makasa salaasa mi sana lam yarfa ra'sahu ila sama lamma nuzila adam min alsamai ila al ard makasa salaasa mi sana lam yarfa ra'sa li xayaihi subhanahu wa taala ndax rus yàlla tabaraka wa taala tafaddal hina tafaddal cheikh akramaka allah tafaddal hina biiznillah حياكم الله borom bi mu ne ba ñu defee loolu ñu rey gëléem gi léegi nag ñuy jibile ci dëkk bi xam nga nit ñi chaque jour bu ñu amee victoire lu ñuy def dañuy jibile bu Balla Gaye daanee lu ngeen def yéen waa géej waaye wuyu du ngeen ma wuyu da ngeen di kontaan génn di yuuxu di corne oto yi pin pin di yëg moto yi génn di yëkkati ruu yi di yuuxu ci kaw di jibile ñii tamit daal diram rey gëléem gi di jibile di yuuxu ci dëkk bi am nañu liberté danañu naan ba mandi allahu akbar wa qaalu ya salih itina bima taiduna in kunta min almursalin ñu ne bu dee yàlla la yónni dëgg nga yeneen nga aca bismillah na mbir mi ñëw dem di yuuxu jaar ci mbedd yi waaw lan moo leen mujj a del fa axasatuhum rajfa allahu akbar yàlla moo yónni benn malaaka malaaka bi ñëw dem ba ci ufuq asamaan bi loolu loolu ngay naan nu mu tuddati l'horizon ori- kii ngeen di gis nii fala malaaka bi taxaw di leen xaar ci seen feet seeni yuux ak seeni malaaka bi xaacu leen ñoom ñëpp benn xaacu la malaaka bi xaacu salleeru seen kaw benn xaacu kese la borom bi nee na fa asbahu fi daarihim jaasimin ñoom ñëpp ca seeni biir kër la ñu këpp daal di boof daal di dee bi leen malaaka bi yuuxoo ñoom ñëpp dañoo wàcc à genoux daal di dee kenn dundatul lépp ñëpp lu doon dund dafa dee lépp lu déggoon xaacu bi rek dafa dafa à genoux seeni oom la ñu wàcce ci suuf daal di faatu kenn dundatul benn malaaka rek la su yàlla yónni woon ñaari malaaka nag kon bu doon ñett bu doon ñeent yàlla mbugalam xejul ci doomu aadama ah góor jigéen ña xaw mu luut benn malaaka la yàlla yónni mu ñëw samp laaf yi ci suufi yóbbu suuf si ba ci kaw asamaan mu wëlbati ko ja'alna aliyaha saafilaha yàlla wëlbati ko ñii benn malaaka la yàlla yónni ci ñoom mu xaacu leen ñoom ñoom ñu dee waa aad lan la yàlla yónni woon ci ñoom ngelaw benn ngelaw la yàlla yónni benn ngelaw ngelaw li di leen yëkkati di leen dóor ba ñoom ñoom ñu dee yàlla mbugalam xëjul ci nit yàlla du suñ morom moo tax dañ ko war a déggal nit sax soo dëkkee ak moom te moo la mën nga xam ne du sa morom da nga ko war a moytandiku wala wala waxuma laak nag borom bi tabaraka wa taala lu ñu mujjee yàlla ne saalax fa tawalla anhum mu daal leen di dummóoy ndeysaan mu taxaw ñoom ñëpp ñu ngi dee mu won leen ginnaaw bis bi leen yàlla doon mbugal bisu samedi la woon xam ngeen ne dëkk yu bëri wala nit ñu bëri yàlla bu leen di mbugal samedi la leen di mbugal te yéen waa Sénégal samedi ngeen di génn baali wala ñële yàlla mbugaloon def leen ay golo ak ay mbaam xuux lan la yàlla waxoon la taatadu fi sabti bu leen jalgati samedi ga ñu daal di génn dem nappi yàlla mu ne wa qulna lahum kunu qiradatan xaashiin ñoom ñëpp ma def leen ay golo ak ay mbaam xuux ñu torox samedi la woon ñii tamit samedi la woon ban heure ci suba cuuy rey nañ gëléem gi ci guddi gi zibile nañ xumbal nañ fuural nañ yuuxu nañu ba sonn dem nañ te di nelaw ñu yeewu fajar nag naan dañuy ndékki fekk malaaka bi mu ngi leen di xaar ndeysaan mu ngi taxaw ci penku bi horizon asamaan bi taxaw di leen xaar waaw ñii ngay jëndi mburu ñee ngay teg café ñee ñoom ña ngay yeewu di wëbbali démb affaire yi neex na xumbal bi malaaka baa ngi taxaw di leen xaar allahu akbar xoolal doomu aadama mu ngi yeewu naan day ndékki day sangu day nangam ndeke dee moo lay xaar dee yow dootoo delluwaat samedi la woon mbokk yi waaw waaye borom bi tabaraka wa taala alag leen mu ne xaacu ba daal leen di jàpp ñoom ñëpp ñu bóof këpp nekk ay néew kër yaa ngi nii taxaw lal yaa ngi nii armoire yaa ngi nii ndaa yaa ngi nii yére yaa ngi nii waaye ñëpp a dee moom saalix mu ne leen wa qaala ya qawmi mu ne yéen sama nit laqad ablagtukum risalata rabbi man day jottali naa leen sama message su borom jottali naa leen sama message su borom taxaw naa fii ne leen ibudullaha ma lakum min ilahin gayru jaamu leen yàlla amu leen kenn ku ngeen war a jaamu ku dul yàlla ngeen lànk taxaw naa ne leen jaamu leen yàlla bàyyi leen caaxaan yi ngeen def wax naa leen ne lii gëlee mu yàlla la bu leen ko laal su ngeen ko laalee yàlla di leen mbugal ngeen dem rey ko yemu ci yemu ma ci jottali mission bi rek waaye wa nasaxtu lakum laaye naa leen biir gis nga nit ñi tey bugguñu laaye biir te yéen tamit na addiin an nasix diine mooy laayante biir saalix nee na wa nasaxtu lakum laaye naa leen biir lan mooy laaye biir mooy ma wax leen lu baax loo xam ne ku ko def yàlla bindal ko tiyaaba ma tere leen lu bon loo xam ne ku ko def yàlla mbugal ko waaye li fi nekk lan la mooy nit ñi ñoo bëggul ku leen di wax lu baax fi mu nekk nii booy wax lu baax sax dañ lay takkal ticket. amoon na benn paa bi ma gënee nekk xale paa bi da daan waaraate suñ julli ajjuma ba pare muy waaraate su jaaree ci mbedd yi day waaraate gars yi tudde ko paa yàlla paa yàlla nga ñëw de noppi leen bu mu romb paa yàlla xoolal ma ne paa yàlla loolu ñu ko tuddee ne paa yàlla paa yàlla nee na gis nga ku ko gis rek ne paa yàlla nga ñëw de nit ñi suñ ko gisee dañuy noppi pour mu bañ a wax ak ñoom mooy nit ñi ñoo yor ay xalaat nit ñi ñoo yor ay jikko bugguñu ku leen ne yàlla nee na ku leen ne yàlla nee na rek ñu mere la waaye nag booy wax ay caaxaan ay xuraafaat ay firi ay gént ah ay kenn xamut ñu teg la ci kaw bëgg la di la jox ay koppar yu duun mu ngoog moo tax gis nga suñu conférence yëpp ay taaxuraan la kenn du wax dëgg bañ nañ ko sax ba boo fu buggee jël conférence dañ naan ah jëlal diw nit ñi danañ rey ba sonn loolu lañ la wax de waaye duñ la ne jëlal diw day wax dëgg mukk dañ laa la u jël nañ jël diw diw moom bu ñëwee danañu ree ba yàlla may nu jàmm léegi pour ree la conférence yi pour ree la léegi koor gi ñëw nga gis conférence yi commencé ba pare léegi conférence yi nekkatul ngir yàlla moo tax it amatul benn njëriñ parce que conférence yëpp ci ginnaaw conférence yi lu fa nekk mooy ay enveloppe au lieu que nit ñi déglu ak kii duñ déglu enveloppe yi rek la ñuy jël di bind bind rek bu ñu paree séddoo wala ñu dugal ci kees gi ñaata ngeen am kees gi am na un million ah déwén de dañ conférence aat keese waaye au lieu ñu conférence pour dégg waxu yàlla pour dégg nasiha bi léegi nit ñi bëgguñu dégg nasiha te xam ngeen yonent ba mu waxee ne addiinu an nasih lan la ko sahaaba yi wax qaalu lima qaala lan la wax allah moo la jiit allah yàlla après mu teg ah lan la teg dégguma lu mu tegaat ba mu ne wa amatil muslimin yàlla mooy laaya biir téere yàlla bi laaya la biir yonent yàlla bi laaya la biir julit ñi laaya la biir léegi nag bu ñu demee ba yooyu yëpp kenn dootu ko déglu comme li Saalih di wax nii wa nasaxtu lakum walakin la tuhibbuna annasihin loolu mooy aslu mooy ci doomu aadama yi kenn ci ñun bëggul nasiha léegi léegi loolu la doon wax nit ñi bëgguñu ku leen laaya biir koo laaya biir ñu mer loolu moo tax mu mu nekk ci alaamatu qurbi saa alxilaak ida asbaxa annaas yakrahuna nusx wala yuhibuna annasihin hada min alaamati saa ida asbaxa annaas la yuhibuna annusx wala yuhibuna annasihin qad iqtaraba saa saa yiñ demee ba nit ñi bëggatuñu ku leen ne yàlla nee na bëggatuñu ku leen ne yonent nee na bëggatuñu lu baax lu bon rek su boobaa boobaa ñoo xam ne yowmal xiyaam jot na suñ demee ba musiciens yi buñ deewee moom la ñuy gën a triste di leen tagg ak di leen raay ak di leen tappa tappal moom la ñuy bëgg ak borom xam-xam borom xam-xam yi bu dee kenn du ko yëg nitu diine yi imaam yi buñ dee kenn du ko yëg dañ leen di taxañ rek dugal ci mor bi génn suuli amul benn drapeau amul benn président amul kenn amul benn waaye bu musiciens yi deeyee seytaane yëpp jóg taxaw kii kay da doon liggéey réew mi kii kay bu mbër yi deewee kii kay bu théâtre kat yi dee ñu ne kii kay da doon reetaanloo nit ñi rek ah yàlla dafa ne ñu reetaanloo nit ñi loolu la yàlla wax reetaanloo leen nit ñi wala jaamuloo leen yàlla nit ñi da leen yàlla wax mbokk yi foo ñu delloo si xel yi xam ne su ngeen gisee yàlla dañu nettali lii nettali ñu ne moo bugal nitu noox wala foofu la foofu la njëkkee woon mu daal ciy teg xawmu aad mu teg ci tey xawmu saalex ñetti dëkk ngi ni yu yàlla mbugal dinu ko nettali nun ni koy dégg lan la moo ñu war soo déggee ñuy nettali histoire mooy rabtul maadi min alxaadir walxaadir lil mustaqbal loolu la histoire di jëriñ yàlla ne faqsusil qasasa laallahum yatafakkaruun nahnu naqussu alayka ahsana alqasas yàlla ne dama lay nettali li gën a neex ci ay nettali ma wax yonent bi mu nettali leen loolu ba mu leer ci yéen maa alagoon niti nuux alag niti aad tey may alag niti saalix ñun ñu dégg loolu lan moonu war mooy tandiku waaye bu ne non garaawul fii mag ñi fi nekk yàlla du fi wàcce mbugal fii Sénégal dëkk bii am na ñoo xam ne sax dañ naan li fi nekk bu ko yàlla xeebee ñàkk loolu ngeen di wax wala déggu leen loolu dégg la loolu man di dégg naa ko ba mu sàppi ma léegi xuloo naa ci sax nag dëju papaay mbokk bi toog li fi li fi nekk li fi nekk bu ko yàlla xeebee ñàkk loolu ngay dégg ci dëkk bi partout ñu koy wax est-ce que yàlla dina ñàkk walillahi ala nnaas xijjul bayt man istataa ilayhi sabil wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin yàlla nee na asamaan bi yëpp malaaka yi fi nekk suuf si jinne yeeg nit ñi ba ñëpp bu ñu àndoon jub ba mel ne yonent yàlla muhammad du yokk ci nguuru yàlla gi tarfatal ayn su ñëpp kàccoore woon asamaan ak suuf ba mel ne firawna gën ko bon du wàññi ci nguuru yàlla gi tarfatal ayn kon yàlla jaamu la du ko jëriñ in ahsantum ahsantum liman li anfusikum wa in asaatum falaha suñ defee lu baax suñu bopp lañ ko defal buñ defee lu bon suñu bopp la waaye mënuñoo lor yàlla yàlla bu fekkoon ne nit ñi buñ ko jaamuwul mu wàcc kon wàcc na yàlla bu doon buñ ko toppul mu wàcc kon kenn waxatu ko comme ni ñuy wotalee président yi naan buñ ko woteelul mu folleeku kon kat di nga gis ku ñoom la ci yàlla ne ko yow di nga wàcc de sama carte bi yow di julli yow fajar bis mu nekk waay waay xam nga ne waaye alhamdulillah ba mu xam ne moom mooy yàlla wallahu ghalibun ala amri yàlla moo noot ci ay mbiram kenn mënulu ko dara lam yalid walam yuulad walam yakun lahu ah la ilaha illa hu la taaxuzuhu sina wala nawm lahu ma fi samawat wa ma fi l ard kon mu ngoog yàlla moom su fekkee dañoo yaakaar ne nun buñ ko defalul dara day folleeku ba ñu ne yàlla buñ ko li fi nekk bu ko yàlla xeewee ñàkk dañuy nax suñu bopp kon mbokk jullit yi lii moo doon nekk darsu tey mu nekk ñetti aaya yoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala lim ñi ciy njàngal li ci njëkk mooy xululu niqmatillahi taala bi kulli man atan an amrihi subhanahu wa taala ñetteel bi ñaareel bi mooy mashruiyatu sara liman maata aw usiba bi musiba azim ñeenteel bi mooy alaamatu qurbi saa alxilaak ida asbaxa annaas yakrahuna annus wala yuhibuna annasihin ñett yi mooy mbugalum yàlla dana wàcc ci ñépp ñoo xam ne dañoo lànkal yàlla loolu booy boo ñu dégg ko ñaareel bi mooy képp koo xam ne nattu yàlla wala dee wala feebar wala musiba dafa wàcc ci kaw bëgg nañ nit ñi yërëmtalu ci sawet ñeenteel mooy bokk na ci mand ñetteel mooy bokk na ci màndarga yowmal qiyaam ñu yëg ne kat nit ñi bu ñu bañee lu baax bu ñu bañee dégg laaya biir bañ li ñuy laaya biir yowmal qiyaam jege na noo ngi jégglu di ñaan sunu borom jalla jalaalu wa azza kamaalu mu defal ñu tawfiq asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu